السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتح هؤلاء يا رزاق يا ملك يفتح بلي ويرزقنا كل أنا عليه في أسماء الجنة يريد بسم محمد فأقوم بالله كما أشهد على موت واحد واحمل يقين أتوا وقتك بسم مسكانا لك السماء والأرض يخبر شارك ليرد أجب حسن دي محمد وأغتها لك يا خمدان السلام عليكم سيدنا وحمي وحمي وحمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الخديم وحفيد الخميل المهني وحمد أكبر سعيد المسا خديم فراي بدي من ديرك ودي خمنا دي تاخ Sénégal jega di xam ne benn xale mbakki mbakki sax bu ma wax bii ne ma ne daa bëgg ma ma leeral mu demoon mos a Salif Diané mu demoon mos a Sini ak lépp mën la ko sori xam naa xam naa des na ko des na ko leeral yi mën naa fas naa ko yéene ngir jëm yàlla yaa maanaam li yàq suñu société bi. dafa am yu dana ko jàngat ci jàngat moo xam ne dana koo xóot maanaam société bi ay ay giir lañ yoo xam ne xitaxoon mu tëddi ay wiraat la mu ko alxoon di waxee ay giir yoo xam ne dañoo dañoo dañoo dendoon waaye taqaluwul woon nga xam ne kër Mandoum bi dañ daa wax naan nangam ya nangam ya macha allah ñu ne ngàllo ga nga xam ne dañu leen a wutal ab ab barab ab quartier spécial dëgg naa ne loolu loolu ba tey fuuta fuuta am na fa ba tey dañ leen wutal ab quartier spécial commune bi amoon na ko bu ñu yónnee daan gone gi kaay ma yónni la ca ngàll ba waa ngàll ba nangu ko boo ne woon boo ne ne ku bokk ku bokk ci ca ngàll ba bokk gisee mu mu yiw lool ñun toog mu ñëw ka si kaa toog ci ci kaw mu ne déet man nag nag saw ngàll laa loolu loolu loolu loolu bu dee jamono ji ñaan ah loolu kat daa xorom loolu kat nangam nangam fekk na fekk na ankay lu amoon solo la du li ñu tuddee discrimination discrimination ci ci droit de l'homme nañu yi tubaab yi rëdd du loolu fii fii du loolu fii fii dañoo bëggoon suba ataywaatu li li tayibiin nga xam ne daa bëggoon daa bëggoon jaxasoo gi jikko yi ak deret yi démb yi ndax bu amee rek jaxasoo gi amee rek falsi daal di am piir kon daal di dem te piir piir ci lu ne dafa baax daanaa wax bu yàgg naan naan naan gaa yi xaw ma ku ñuy wax amoon na ku xorom woon ci taxawal ko lii ma di ko yëm loolu daal di ne waaw man de ku ko yëm laa vraiment may may waaye li ma ko yëmee mooy dëggal na dafa dëggal moom booba booba booba maa ngi xool nit ñi gaa yi wane baax ma gis ne kooka leen gën a baax moom jëmbur boo leen gën ci jikko am na daal jikko ju ju ju leen gën a moo jikko dëggal waaw dëggal gi mu dëggal daal ci ci yaram dëggal loolu jikko jikko ju tedd la ku jëleen jikko jooju dugal ko ci biir islam day tedd lool yow yow jullit bi nga xam ne dangaa bëgg a dund islam wax yàlla ne woon ne sa sol ko mu enseigné ko nga xamante ne kon dëggal boo jëloon dëggal yow jëfandikoo ko ci ci diine diine wax nga dëggal ci kon danga am la damay seetlu seetlu boo xam ne yàlla ma ko sarax danay gis nit gis ci moom ay lëndëm yoo xam ne danaa xool ba xam waaw moom lan lan- lan moo ko teg teg teg lëndëm gi lëndëm gi dina ci moom jëmm ji nga xam ne danaa xool ba xam bakkaar yàlla wala am na lën- lëndëm yi misaal bokkal yàlla nga xam ne nga xam ne am na lëndëm yu- lëndëm yoo xam ne lëndëm yi ba- bay julli la lée- léegi am na lëndëm yoo xam ne lëndëm yi njaaloo la yàlla sax moom da da da yàq nit ki moom ci yëpp yëpp yàq waaye waaye da da damay xool tubaab yi tubaab yi nga xam ne dañoo correct noonu bu ma demee Europe di di di di leen xool ak tubaab yi nga xam ne dañoo ay mbandaar yi lañ ngay xool day mel ne mbandaar yi lëndëm gi ne si ñoom nekkul fee xam fi yàlla am na am na am na sell demal ci jànkati tubaab yi Ndakaaru da da da da jànkat dëgg dëgg da nga gis ne am na am na am na ci ñoo xam ne gis ne am na am am na xeetu sell gu ne ci ñoom nga xam ne day mel ne du sellu lislaam waaye sell ga nga doon sellal day mel ne sellu ñu dëgg la nga gis ci jànkat yooyu nga gis ci ñoo ci ñoo xam ne dañuy lëndëm xam ne da da ñi nga xam ne da dañoo na yaan yëy këyit yi ñu ko gone daa waxee nga xam ne yéen nañ këyit ci tubaab yi ñoom day mel ne da day mel ne daajo ak secret raf yi daa mel ne dugg na ci ñoom xam ne dañuy lëndëm këris xam ne bu ñu lëndëmee këris foofu da ngay xam ne kon ci laay ci laay gisee ne kon ñoom ki ñu ngir ñu kon xam-xam tubaab boobu ñoom dugg na leen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wax waxoon naa ko kenn suñu xaarim mbokki daal salaam waxtaan moom ne ko suñ bi ah mbaa xam- mbaa xam nga ne màggatee ci ci bureau day na naag leer moom ne waa xam naa ko koy mu ne ko ah dama ko xamee mu ne ma xanaa ay jaxa jaxasoo mooy jaxasoo soog di jànkati waaw kon lë- lëndëm googu lëndëm googu kon lë- lë- lë- lë- lëndëm yi ci wute na ndax lu tax fi ñu toll ku di julli lëndëm gi mu ne dem foofu da- dafa am beneen lu xoromu lu ci am mooy yéefar bi nga xam ne moom fa fa fa fa soowut a julli julliwut du am lënd moom ki ki nga xam ne dañu ab jullit la ba noppi julliwut foofu boo xoolee ñu ngi ñaar buñ buñ taxawoon da dangay gis ne ne ki ki nga xam ne fasagutu julli moom kooku moom kat moom moom yoon ñëw ci julli kooku kooku moom dangay gis ne da koy leer ndakaaru jànkat yi nga xam ne dañoo dem ba kii moom nga xam ne amuñ jot julli ñoom ñu ngi ñu ngi ci àdduna ba ba di suñu xaaj bu ñëw ñoom ñoom amuñ jot julli da da ngay gis ne da ngay gis ne lë lëndëmu ñàkk julli nekkul ci ñoom ci ci ci ci li ma gis xëy loolu xoromu la ñi nga xam ne dañu ne dañoo war a julli julli wuñ ñooñu ngi gis ne lëndëm gi nekk ci ñoom. ka seetlu ki nga xam ne dafay sikkar tur yàlla ak ki sikkar Souleymane Yadi Souleymane Yadi day day lëndëm kër yi nga xam ne te tey lëndëm gi nga xam ne lëndëmu gi kuy def dara la kuy wat dara la. waaw nga xam ne kii leer te leer gi du leer surtout yàlla waaye leeru naturellement rek la ni yàlla bindi woon peut-être laa yëkkati peut-être sax yaa waaye leeru tur yàlla di leer moom moom moom day leer xati ne amal neneen léeg-léeg sax moom ñu xaw koo jaawale si Cheikh Tidiane si daana wax naan di tooñ sëñ si naan sëriñ boo xam ne day leer nañ waaye suñu bëri xaram nga dem leer fekk na dafa diwa doom nga xam ne kon nit ki mën naa leer leeru tabian ga rek nga xam ne mu xaw a niroog leeru tur yàlla waaye bokkuñu bokkuñu maanaam jàkk nit xool ko gis ci moom lëndëm boo na ko jàkk maamum ju maamum ju yàgg dam da- moom lay jëkk gis ci ci ci moom mu nit mu bara di génn pël li daal ñu kanam génn bu génn ñoo xam ne xam ne maam ju ñàng joo xam ne xam naa maam yi xërëm yaa maam yi daal di xërëm xool ko mu ne ñàng nga xam ne waaye waaye bu bu man tiitee di di di daal di dalwar ma jaaxle ma ne ah kon kon kon kii gàllankoor bi moom yàgg na yàgg na defal naa ne dugg naa xalwa am ku am ku ma am ku ma yóbbante ci ci ci ci xaloo ba ma xool noox ji su mboom su mboom wan ma wa- wan ma seen wàllu bàyyi ñoom ay xërëmkat lañ wan wan ma seen ndey ma mel sell doomi soxna piir la nga xam ne tegtal ba sax mooy barak bi ñëwee di di jël si xabaar barak ndax xam naa xabaar la moo yàlla sax xam déet ma ne ko yow mii de yàgg sa yaay benn ngeen yéen a niroo se- seen yaay dafa mel ne daal dem ci ndaw mu ne waaw waaw ma ngi di nee ñu maa ngi niroo léegi kon mooy ah moytu leen de bu ngeen yeexee day ci ak njabar ci ngeen di gën gën di jëm waaw léegi léegi kon kon kon li li yàq li yàq s- li yàq société bi tigi li li yàq su li yàq su su société bi tigi daa mel ne démb ju juñ juñ faratu la bu bu bu bu jàngaloon nit ñi xam-xam xam-xam bu ma doon xam-xam bi saqaafa dëgg mooy valeur yi yi tedd yi gën a baax ci li nit ñi doon dund ñu tànn ko teg ko fee tudde ko culture ko ko ko jàng ko ko doxee ñu ne kii di mu saqaf la am di culture la kooku la waaye du la jàng lu neex ngay li li gën ci la ngeen am yow li ngeen am boo amee bu ngeen amee sax yëggaan yi yeneen yeneen te mooy xiyamool yi yaay alxiyamul insaaniya la al al al musla yooyu ku yooyu bu ñu ko jàngalu nit ñi yooyu mën naa far mën naa far mën mën naa raxas deret ji xaw ma ba xam dana seetlu cëm déet nag ndax am na si ku ñoo xam ne kon ci ci ci ci misaal moom rek ci xaloo bi ñooñu ay julli lañ waaye te gis nga ne deret ji bi tey kon desee naa seet kon problématique dëgg la dëgg la lëndëm yi ñu nekk ci yi ñu jële ci démb ja te amuñu daara yi tërbiya tërbiya joo xam ne é- éducation lay doon éducation jàngale tërbiya dama ci dama ci école tubaab yi dama mas a gis benn waaye di jàngale ci école gouvernement bi romb ci bunt bi nii seen ko muy kii lay langas la la doon jàngale mu xaadasa di di di wax jàngal gone yi nu nuy waxee damaa bëgg a dem coono la damaa daal bëgg a tur ndox te te bëgg koo junj ba nga xam ne gone yi danañ mën a wut baal yéen noonu ñu koy jalag boobu ñu ñuy def ci langaas mu daal di di di teg loxo ci kanamam ci kanamam ci ci awraam ma tiit ay si seppee ma tiit lool ma xaar ko ba mu mu daal di koy kii nuyoo ne ko da dama la soxla mu génn ci biti warmal na ma ba tax na génn ma ne ko ah sëñ bi li li nga def xam xam nga ko xale yu ndaw yi tuuti yi jigéen ak góor yi ne fii ngay wane noonu li nga bëgg nga dañ xam ko waaye dama waaye di jégalu ah waaw non ma ne ko ma ne ko loolu marjali mën naa andi lu lu xorom nga xam ne seetal kooku mën a def loolu ci sa yi seppe loolu te kat ab jullit la kat ay jullit la bu doon tubaab bi sax nga ne nga ne nga ne ñoom jumbut ñoom loolu du leen wàññi dara ndax kallaa bal raana ala qulubihim xol yi daa daa xumaak ca loola moom acteur dootu ko wàññi dara kon nga xam ne kon problématique bàngoog deret ji taq si diit yi li ma moom la ma ngi leen wax si diit si diit gi dafa jóg jékki-jékki nit def dara loo xam ne kenn fooyu koon woon ndax ñu mu jaxasoo gaa yi nga xam ne bu defee ndax sàngam joo xam ne jékki-jékki saaga saaga wu rëy te te kenn jàpputu ne dara saaga ndax ndax ndax dafa yàgg a toog ci gaa yu baax yi am ku yar yëngu ah kii moom li wax na mag daa dee dana xam naa sidit bi ngaa jóg yam foofa ka xam-xam lam jublu ci sidit ga mooy démb jaa démb ji yàgg ji moo moo yëngu nga xam ne sharri xaasidin isaa xasad bu ka- bu kañaan nga jógee lii daa jóg kon mën naa am kañaan ba ne bu kañaan gi du du feeñ du yëngu sëñ sëñ Saw tëdd mën a wax naa yaan xol bu ne la la la nekk waaye gëm yàlla moo koy lugg boobu gëm yàlla bu bëggee jóg nga téye ko kon loolu mooy mën naa am xaaj bu bu xaaj bu njëkk bi ci ne kon sulumaat yi sulumaat yi sulumaat yi xë- xërëmkat ya moom dëgg yàlla boo seetloo tu- tu- tubaab yi dañoo gëj ci xërëm xërëm dañ caa gëj de babylon ca ca asina ca Rome dañ caa gëj ñoom gëj nañ ci ñoom ca ansuru nax de renaissance ci lañ weddee xor ñoom lépp ñoom dellu ca valeur yi nit rek buñ ko jëlee baax na ci ca maam yi xërëm yàgg waaye da dañoo weddi diini ñoom booba diini mooy mooy xërëm ñu daal di koy weddi daal di wéy daal di libre adduna bi daal yow kenn yit fu ñu valeur yi fu ñu gisee lu baax ñoom jiyal bu bu dee neex nañu valeur valeur yi dafay sotti ko waaw valeur yi duñu doon yàlla ci suñ kaw duñu ki déedéet bu yàggee dañ dañ koy sànni bu bu dee neexuñu bu dee anacé wuñu nga xam ne moo tax gis nga góor ak jigéen noonu ko ñu bëgg a jàllale fépp noonu yoo xam ne dana nit du du du du du sàccare bay mbubb mi mag maag président ba ak sëñ ba yëpp nit dit la jëmm ji melawee noonu la non non non xam nga sëñ sëñ Tuubaa moom wa jàngal nañu ko ci ci misalik booba koy def agrégation lay waxal lépp benn la nit war a jàkk nit ngay góor xamal ne lay yàgg moom mooy niru jëmm war a jàkk nit muy jigéen xamal ne lay te ngay jigéen yow yéen a niru niru bind mu jeex kon gën gi du loolu bi ngeen di gënee mooy mooy ca taqwa suñu waa jàngale woon na ko ci masalik jombul ñu dikkee ca ñu dikkee ca société yooyu dañ ko yàlla kon kon kon kon kon xaj njëkk ba ngoog